président Macky Sall man benn moment je me dis man maa comprendre wala moom moo comprendre <laughs> par exemple euh, bi bi gars yi di wax jàmm gën troisième mandat le mm. président di que euh, ñoom bëgguñu jàmm quoi parce que lu tax ñoom ñuy wax jàmm gën troisième mandat. finalement dafa mel ni sa xel yow dangay dem ba jàpp na yow li nga bëgg rek loolu moom mooy dëgg te loolu la ñëpp war a def. maa nga Macky Sall dafa dofa te gars yi xamuñ ne dafa dof. Ah waaw. loolu de kenn mënu ko xaar kii ak dof moom loolu moom mook dof bu du dof dem sorewuñu euh, bon ñu bàyyi ko ñu ko mu toj ko parce que euh, gars yi dañuy jaawale dof ak ku ah. tàggali ko xelam mhm. ki tàggali ko xelam mooy ki nga xamante ni moom ñooñu lañuy ñuy yóbbu fan di leen faj di leen indiwaat mhm. ñooñu lañ tàgg ñooñu fa lañ tàgg mais dof mhm. mooy koo xamante ni tey fekk loo xamante ni du ci dara mu foog ni dara la ci moo tax olof naan la dof kenn du ne yaa moom jàng. parce que boo moytuwul buy ñibbi da naan nañ te <laughs> yóbbaale picc yeeg. <laughs> loolu loolu moom leer na. léegi loolu yëpp dof la. yàlla xam nga la lay xoolee nit ku dof. ñaan mm. dañ lay tegal euh, maanaam dañ lay tegal lu luy luy jeex. tegal la lu sax. Mm-hmm. yow nga occ fi lu sax. Mhm. di rey sa bopp ci liy jeex. kooku melokaanu dof la. Mhm, mhm. <laughs> dañ lay fekk nga xamante ni yow liñ la jox nii ci loxo lañ ko jëlee jox la. jox nga bëgg ko def sa moomeelu ba kooku melokaanu dof la. xam yàlla nee na nguur maa koy jox ku ma neex. buñ la ko joxee nag au lieu que nga conscient ni lii yàlla ci loxo la ko jëlee jox la ko. te bu subaa dina ko jëlee ci sa loxo jox ko loxo keneen. yow ngay def ay pexe ba loolu du yow du jóg sa loxo. Mhm, mhm. xam nga dof weesuwul loolu. Mhm. te Macky Sall gouvernance am yëpp ci ay pexe la nekkoon. moo tax nit ñi bu ñu leen di fal ñu war a xool ndax dofuñu ah. oui. <laughs> loolu tamit loolu a teg euh, teg baaraam te benn buggaan ci dof yi la bokk. Mm. xam naa ne question bi. déet waay waaw dañ ñëw. waaw <laughs> ci moom sax moom kay comme dugg foofu mën nañ faa jaarale benn yoon <laughs> ndax moom gis nañu moom it euh, moo ngi moo ngi wax ci lii di bilan wu son excellence. Mhm. nee na kii di Ousmane Sonko dafa jàpp ne dafa lajji. ndax bi mu demee fële ca Ndar munoon na. Euh, wax ci xale yi nga xamante ne ni bi ci jamonoy nguuru Macky Sall. Mhm. dañoo daanu woon euh, maanaam dañoo faatu. Mhm. te du lenn lu dul woon. Euh, moom moomu di euh, le moom lañ mhm. doon topp maanaam ba mu daanu mu daal di jëkkatiwaat beneen point daal dina ne xale yi nga xamante ne ni bii aussi dañoo dee ci géej gi kii di Sonko ak Jomaay seen seeni ay responsabilité la ñoom ñoo ci war a jóg maanaam daal ci gàttal les cent jours yi nga xamante ne ni bii moom la jomaay def dara dara dara dara baaxu ci moom moom foofu la moom foofu la duggee mooy li may wax sànq naan cent jours cent failles noonu la ko tuddee moom moom dafa ñëw rek euh, teg moom ay cent jeunes ba daanaka sax woote à une conférence publique au au grand théâtre je pense ci ci fan yi ñu jëm mm. euh, fan nga teg ne da nga ko boole ci ci ñooñu man moom sañu ma ko wax <laughs> <laughs> xam nga euh, déjà moom dafa amel bor peuple bi. moom Bougane waaw. dafa amel bor peuple bi et dafa fen peuple bi parce que Bougane dañ ko laaj ne ko yenee candidat anti système bu subaa bu candidat bu benn candidat anti système bi jàlle. Mhm. comme candidat Pastef. Mhm. ndax da nga koy jàppale. mu ne loolu amul amul sikk sàkk amul xalaat sax. moom lay jàppale. Mhm. <laughs> loolu doon promesse bu mu defa ak bopp. ñu dem ba waxtu jàppale ko jot. ma man mooy wër di annoncé naan mi ngi ci biir coalition bi. waaw man <laughs> yow mii. <laughs> waaw ah, la mu wax. waaw la mu wax. ci nga basé wu mooy. Uh-huh. xam nga yow ci nga basé wu. ku ma ma ne la waa ji mi ngi si biir. question de temps la rek. ndax day jàpp ne rek li mu wax dana ko def. xam nga yow ci ci ay wax nga basé wu woon. Uh-huh. léegi loolu du promesse bu mu faussé. waaw hum est-ce que loolu jurul sax ay ñu bëri ci coalition ci gëm sa bopp daal di démissionner. oui ku mel ni Guèye et d'autres oui. Hmm. xam loolu jural na ay conséquences ñi ko topp. Hmm. dal na leen ci wàllu politique. et puis sew sew bu am ci biir mooy daanaka lënc lënc. Euh, ñii seet nañ ko ñii seet si nañ seet wuñ ko woo nañ ko woowuñu ko. ba mhm. daanaka gay l'original mi may wax. Mhm. mais bi Bougane taxawee ne diw euh, la coalition Diomaye président déggante ak ñoom gay l'original moo ko ne man man lañ woo ma woo la yow ne la ñu ngi lay woo léegi léegi. ma toog quelque temps nga confirmé na ne. woo nañ la après nga bëgg a génnaat ne mosuñu la woo. xam nga kooku day fen ay melokaanu dof rek laa lay wax di nga koo fekk kuy fen koo fekk kuy sàcc koo hmm? fekk kuy moy koo fekk kuy kuy rey nit mm-hmm. yooyu yëpp ay melokaanu dof la jam jamono yi la nga taxawoon na fi masaala ko jëlaat ne man euh, sàcc moom a gënal fen waaw <laughs> loolu moom moom na ma ko baal waaye loolu moom waxi dof la jëw kon nangu nga di wax dof la moom moom. mais est-ce que tamit est-ce que tamit loolu mu wax fële ca Masalikul nekkul kàddu yoo xamante ne dafa bëgg a gars yi bàyyi ko xel ndax mu ngi war a woote fële ca Grand Théâtre. Grand Théâtre laa xamul lu mu fay def. waaw bu wootee bu waxee bu waxee ay ton ay tonneaux gars yi dinañ ko mën a bàyyi xel. xaw ma lay wax xelu xelu xam nga ay jamono Macky Sall. dafa am lu mu fi undi woon mooy cibb tànk. bu Macky Sall fa Macky Sall dem mu dem fa. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. loolu la bëgg a loolu la bëgg euh, def ak Sonko. Mm-hmm, te tànk fa Sonko dem mu dem fa. te xamul ni contexte yi changé na. acteurs yi changé nañu. population bi changé na. waaw dañoo nekkoon ci phase révolution nit moo ñu jiite du ñu jaay doole di ñu rey di ñu xoxatal. di ñu tiital pour ñu bàyyee ko mu def ci dëkk bi lu ko neex. ñu ne ko mhm. du fi am. léegi nag peuple bi di xoolu ban leader moo mën a diriger ko xeex boobu. ak ban parti. Pastef ñëw génn Ousmane ñëw cinq ñëw taxaw nekk leader peuple bi jeunesse bi nekk ci ginnaaw. Mhm. léegi réussir nañ phase boobu. léegi dañoo toll ci phase su est-ce que parfois ñiy génn di wax ak ñiy def ay affaires est-ce que du cest à transition bi ngay wax nii moom la ñu jëlagul en compte ba léegi. jëlaguñ ko en compte moo tax ma ne la dañu dof imposition bi couvert amu ci. <laughs> jëwriñ jëwriñ du ko baal. non c'est parce que parfois il m'arrive ma déglu nit ba si yàgg ma ne mais kii est-ce que. c'est-à-dire en tant que homme politique. amuñu vision pour pour pour vision bi ngay wax nii. keroog maa koy wax ma ne man je me dis que man en tant que ku judd ba ki démb Ndiaye. ma mën a toog veillu ele may toog fii chaque jour di wax ne élection yii buñ ci demee nii ak nii la nar a demee te du xam-xam du baatin du dara. Mhm. si ay faits yu may gis la mais man fu ma demee ba mën a gis loolu gis ne élection yi le président mooy mën na ko gagner au premier tour est-ce que koo xam ne moom homme politique la euh, am je sais pas mu war a mën a am information yu ma amul est-ce que moom war na mën a def yenn erreur yooyu. déjà xam nga homme politique bu noo ko nekk daa boo amul vision ak perception waroo ko doon. Mhm. ba ko promesse rek ngay dunde mhm. xam nga politique promesse la. fii dénkuñu la amuloo benn bor mais bis bu ñu la dénkee nag da ngaa bor peuple bi da leen war a fay promesse bi te peuple bi dañu boo non simplement dañ lay jox moyens yi pour nga réaliser yow say promesse léegi yow boo mënul lire boo mënul lire mais naka ngay mën a représenter peuple bi te xamuloo loolu liñ bëgg. vraiment. fi mu toll nii dañoo toll ci phase de construire mais malheureusement que balaa ngay mën a construire foog nga déconstruire. Mhm. Mhm. balaa ngay mën a tabax faw nga yàqate lañ tabaxoon te baaxut. Mhm. pour nga mën a tàmbaliwaat. oui te ñii ci phase yàqate lañ nekk la nga xamante ne moom la fi ñële tabaxoon te baaxul. Mhm. moo tax coow li bari. Ah, parce que instance yu ñu toll ñi nekkoon ci dëkk bi di dundee deretu waa dëkk bi. xam nga deretu dëkk bi mooy lan. Mhm. l'argent du contribuable. l'argent du contribuable mooy deretu dëkk bi képp ku koy lekk te liggéeyoo ko mhm. yaa dëmm yi yéen a yab la crime la bu mag kay hmm? mhm. monstre ga waaw parce que mhm. fii boroom kër yi nga xamante ni ñoom la dépense jiital. waaw ceeb beeg diwlin beek ndox beeg courant beek yooyu. Mm-hmm. ñoom taxes yi ci yooyu lañ koy dugal. waaw. parce yi moo tax dund bi cher. Mm-hmm. léegi yow bu fekkee ni yow ñooñu ñu ngi fay ay taxes peuple bi ñu ngi fay taxe boo ko yëgee bu ñu ko yëgul. Mm-hmm. yow nga jël taxes yooyu nga xamante ni moom la peuple bi di fay. ah ngeen ciy nguuru di ko utiliser nu mu leen neexee. yéen ay criminel ngeen. waaw. loolu la loolu la ba la ba ba ba ba yàlla ne day créer aadama. Mhm. malaaka yi dañ ne yàlla ndax da ngay créer kuy seme corruption ak crime ci kaw suuf. Mhm. ñu waxee yàlla. Mhm. créer koo xamante ni day seme corruption ak xam nga ñu bëri yaakaar ni crime mooy jël nit jam ko. mu dee wala rey nit ñi mais rey nit muy dund moo gën a garaaw. mooy fexe ba nga xamante ni nit ki dootul vivre mais si mm. survie lay nekk moom waxul toog di savourer di tànn li muy lekk lu mu dul lekk moom la am lu mu lekk rek dund rek <laughs> loolu mooy mm-hmm. te ñii foofu la ñu yóbbu ci survie mm-hmm. mais amatuñ choix boo xoolee covid bi man damay rus naka lañuy ñuy dimbalee population bi ñu naan ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb mel ni ay picc ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb. def def si ñu xiif. moo ceeb. ceeb ceeb tax ñëpp a diabétique. te ceeb day joxe jabet baaxul. bu bëree surtout. tu léegi nag ñii dañ toll ci phase de déconstruire. pour reconstruire. léegi nag ñu bëri instance yi ñu toll nii ñi amuñu lecture boobu. Mhm. ñii pour nga mën leen juger dëgg dëgg dëgg il faut que ñu dawal deux ans. Mhm. deux moom boo ci boo ci waxee ne baaxul moom di nga am peut-être fondement boo xam ne war nga cee mën a sukkandiku. pour dire baax na wala baaxul. Mhm. deux ans la ñu war a am pour nga mën leen juger parce que il nga may leen ñaari saison. ngir li ñu bëgg def ci agriculture bi ñu mën ko def li ñu bëgg def ci élevage bi ñu mën ko def li ñu bëgg def ci artisanat bi ñu mën ko def mhm. li ñu mën a def ci école bi ñu mën ko def ah mhm. li ñu mën a def ci extra extra et cetera mhm. ñu mën ko def kon opposition bi dafa teel mais dafa teel mais ñun fi ci phase liggéey la ñu waroon a dem parce que tey jii buñ la falee mais américains yi sax noonu la ñuy def américains yi buñ la falee après dañuy def deux mi mandat muy deux ans lañ lay bàyyi nga dawal après ci la ñuy doog a xam yow sa politique général say réalisation annuelle après ñu xam ndax yow fi nga jëm dëppook nag ñoom li ñuy aspiré wala déet. Mm-hmm. loolu moo gën a logique quoi. bu mm-hmm. ko defee ñëpp liggéey opposition du liggéey opposant ak politique du métier. Mm-hmm. Sénégal fi mu toll waratuñu woon sax wax waxi politique waxu liggéey la ñu waroon a wax. comment faire et puis yow nga wëlbati ko aussi Bougane nekk yow nekkoo un un un citoyen exemple. Bougane bu doon dëkk yi dëkk yi am droit yàlla la dañ ko doo dañ ne dañ dañ koy tëj évasion fiscale ñàkk fay ko ñàkk fay fisc dañ koy tëj dañ koy considéré comme un voyou de la république mais moom nag hmm. boo ko xoolee dafa mel ni ci euh, mbirum bilan euh, des cent jours. Hmm. la daf ci def mbirum pro ndox toll ndax boo xoolee euh, nawet bi dugg na. Hmm. te mbirum ndox yi inondation yi dafa jiitu gouvernement bu bi fi nekk. lépp daal dina ko si souligner nee na yaay yee ngi jooy xale yee ngi jooy nekk ci taw bi. ñàppati ngólo li dolli ci ay ay ay ay fitna daal. boo xoolee li mu li mu bind. soo ko soo ko liiree. boo nekkee koo xamante ne ni bii sab xalaat daa gàtt rek mën nga ci mën nga ci jaar daal di remonté rek ci lii di waaw ci lii di nguur gu bees gi ndax lim ci wax dafa day ruube rek parce que moom xam na ni waaw Macky Sall moom ci bilan bi lay wax wala ci day xaste non loo jàpp bugaan xam nga man bugaan moom ma laaj man bugaan bugguma sax di perdre temps ci moom <laughs> parce que bugaan il n'inspire pas bugaan il <laughs> soo doon soo doon soo doon euh, xam naa gars yi tam tam ñu kii mais soo doon comparé ci ci profil c'est-à-dire li ngay wax ne il n'inspire pas mm-hmm. je prends l'exemple d'Ousmane Sonko par exemple soo doon comparer ces personnalités la mm-hmm. lan mooy lan lan moo leen lan moo leen méngale lan moo leen euh, différencier oui bokkuñu bokkuñu mm-hmm. Bougane ak Ousmane Sonko dafa mel ne pomme de terre ak Angleterre <laughs> <laughs> euh. ay jëwrin <laughs> loolu looy ak Angleterre. <laughs> waaw waaw. <laughs> parce que kii Ousmane Sonko dama ko jeune la bu juddoo ci dëkk bi. màggee ci dëkk bi ñu fayal ko ci xaalisu dëkk bi mu jàngee jëf ci dëkk bi. Mm-hmm. dëkk bi embauché ko muy liggéeyal dëkk bi. Mm-hmm. dem ba nga xamante ni droit may na ko. te devoir la. Hmm. mu contribuer. Hmm. ci développement dëkk bi. Hmm. mais fan la mën a contribuer ci développement dëkk bi à part liggéey bu muy liggéey. que sur la voie politique. mu wàcc ci dëkk bi ñu créer seen parti légalement. discours la politique discours la. ñu jaay sénégalais yi benn discours sénégalais yi dégg discours bi daal di koy jënd. <laughs> Mm-hmm. c'est logique non. Mm-hmm. léegi nag jënd boobu sénégalais yi jënd discours am gëm ko. Mm-hmm. mu am ñu ko iñaane ñoom au lieu ñu dem def seen discours jaare ko dëkk bi. ñoom ñu topp ci deru Ousmane Sonko bi di ngawti ngawti. yenn saa yi tam nit di jaay ngay jaay mais day mel ni jarle gi muy jarle moo tere sa sa jaay jar. kon kiñaan la <laughs> jalousie la. léegi nag discours boobu nga xamante ni mooy discours Pastef bi peuple bi jënd discours boobu moo moom lañ ko moom lañ ko iñaane kiñaan ñaan la jalousie la mm-hmm. au lieu que buy def politique moom buggaan mu dem ut discours jaay ko peuple bi ba pare def ay action mm-hmm. ba pare considérer Ousmane Sonko comme comme compatriote comme compatriote parce que mhm. c'est anti-système la woon mhm. comme un frère quoi comme ni ko ñeneen ñi defee mais yow ko teg bët Ousmane Sonko rek fu mu dem nga dem fa lu mu wax nga indi contraire bi wax loolu du politique vraiment loolu dañ lay bañ sax mhm, dañ lay bañ waaw mooy raison wu topp tànk nu mu tëddee def grand théâtre ci tànk dem grand théâtre du ko dem defi stade Amadou bari <laughs> moo <laughs> moo gën a yaatu fëlal nit di ah, gën a wuy ah, foofu de yaatu na moom waaw lan mooy grand théâtre xëj na tamit daa am doole poos bu mu bu mu ko bu bëgg est-ce que est euh, euh, maanaam taxawaayu euh, maanaam opposition wala chef de l'opposition moom la moom la nekk di di di di xëccoo chef de polémique la moom moomu buggaan waaw mhm. chef des rancuniers teg ko foofu Gane day sonn te moom mënul jaay dara Sénégalais yi. bu mm. ko amul lu mu jaay Sénégalais yi. kon dañ ko war a defaraat pour mu mën a nekk homme politique parce que homme politique avant tout il faut nga nekk exemple ci société bi foo nga nekk modèle. waaw. Mm-hmm. Hmm? Ah, surtout surtout. Mm-hmm. yéen sax yéenay may. <laughs> d'accord. <laughs> ak ak kii ak euh, ak internet yi seen euh, seen tur bu bees bi ñu leen ngénte xam nga ngénte nañ leen jour yi ci ginnaaw euh, lu yàggul dara. waaw ah, kër dof yi. waaw ngénte woon nañ leen. ah jërëjëf kon dof yi. xam <laughs> noonu. Ah, doy ah, ko doy na waax de. oui kay noonu la. ba hmm. tey assemblée nationale bi nga xam ne. Euh, daanaka fal nañu leen ci ci deux mille vingt deux bi bi ñu génn mu nekk en tout cas